di téere cheikh mohammad ibnu abdul wahab ñoo ngi tey ci darsul haadi achar muy fukkeelu tomb fukkeelu dars ak benn ñu jël tey baabul xawf min ashirk buntëb ragal bokkaale bunt bi muy buntu ragal bokkaale jullit bi war na cee xame ñeenti mbir bala muy dugg ci dars bi bi ci njëkk mooy an yaarifa al muslim assirkul akbar wa sirkul asgar jullit bi war naa mën a ràññee ñaari bokkaale bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw li tax mu war a ràññee ñaar yooyu nag dinañ ko gis léegi ci kanam insha allah ñaareel bi mooy an yaarifa almuslim an yufarriqa almuslim bayna sirki l asgar sirki l akbar sirki l jul bi war a mën a ràññee ci ay jaamu yàllaam yi muy def mu mën a mooy tandiku yan ñoo ci bokkaale yu mag yi ak yan ñoo ci bokkaale yu ndaw yi ñetteel bi mooy an yahzara muslim min ashirki bi anwaihi jullit bi war mooy tandiku loo mooy tandiku mooy ci boppam mooy tandiku loo njabootam ak ay mbokkam bokkaale ak ay façon mu yëpp bu mag ak bu ndaw ak yëpp war koo mooy te ñeenteel bi mooy an yufassira al muslim du'a khalil alayhi wa xawfihi ala nafsihi wa banihi jullit bi war a firi ñaanu yonent yàlla Ibrahim bi mu ñaanal boppam moom Ibrahim ak njabootam ci ragal bu mu ragal bokkaale ñeenti mooy lu jullit war a xam ci darsu tey bii bu ñëw ci bunt bi di dugg ci leçon bi lu njëkk mooy lu ñu war a xam ñun jullit yépp mooy at tawxid ni'matun azima kennal yàlla wéetal yàlla xéewal gu rëy la ku ko yàlla xañ rek alku kennal yàlla jullit bi xam yàlla ba léppam mbiram yépp yàlla rek rek moo ko ci doy keneen du ko ci doy leneen du ko ci doy loolu xéewal la bu yàlla xéewale julit te loolu tey dafa manqué fa ida manna allahu biha ala al abd su yàlla defalee xéewal ab julit mu xàmmee kennal yàlla xàmmee tawxiid wéetal yàlla yàlla rek di ko doy jullit boobu am na xéewal gu rëy wa hafizaha jullit boobu waxtu li ko yàlla may elman wa amalan ci xam-xam ak ci jëfe léeg nit yàlla may ko tawxiid mu ragal koo jëfe ndeysaan léeg nit yàlla may ko tawxiid ci xam-xam mu xam ko bu baax mais du ko mën a jëfe ndeke tawxid kañ lay mën a am mooy nga wattu ko ilman wa amalan ci xam-xam ak jëfe ku amul xam-xam nag moom mënoo dund tawxid lenn sax ci li ñuy wax ne nit mën naa dund tawxid mooy ku am xam-xam mais ku amul xam-xam moom mi ngi mel ne rek ku mënul bay ku dugg ci tool di ruuj ku mënul bay ku dugg ci tool di ruuj yor illa moom daal lu mu gis rek ñax la na fi jóge loolu musiba la kon fa alayhi l xawfu kon julit boobu war naa tiit min zawali hazihi nicma bi maarifati maa yudaaddiha wa huwa shirk wal xawfu minhu julit bi naka lay tiitee ci xéewal googu mu deñ mooy mu xam contraire u tawxid lan mooy safaanu tawhid contraire mooy safaan lu weex lan mooy safaanam ah lu ñuul guddi lan mooy safaanam bëccëg suukar lan mooy safaanam xorom kenn kennal yàlla lan mooy safaanam mooy bokkaale shirk musiba la soo mënul xàmmee mbir yi musiba daf lay daal chaque jour da nga ciy dugg nga defe ne yaa ngi ci diine fekk nga génn nga ci diine ji bu yàgg yàgg yàgg yàgg loolu moo doon almadxal bunt bi ñuy duggee bu ñu ñëw ci dars bi ñaari aaya la aaya bu njëkk bi mi ngi ci suratu nisa nekk aaya 48 ñaareelu aaya bi mu ngi ci suratu ibrahim nekk aaya 35 aaya bu njëkk bi borom bi tabaraka wa taala nee na inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na inna allaha naka yàlla laa yaxfiru du jéggal an yushraka bihi ñu koy bokkaale ak dara wala ak kenn yàlla du nangu ñu koy bokkaale yàlla nee na du ma ko nangu du ma ko baalaate wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha leneen nag lu nit def lu dul bokkaale mun naa koo baal mais ku ma bokkaale du ma la baal est-ce que dégg nañu wax bi yàlla nee nit lu mu mun a def mën naa koo baal ba mu des bokkaale ah yaakaar naa ñun ñu toog fi nekk ay góor suñu soxna lu nekk mën nañ koo baal ba mu des ñu fekk koo góor ci kaw lan wala sa soxna mun ngaa waaj mu ne la tey ma añ ah non garaawul quoi tey togguma ndékki ah non garaawul quoi tey fóotuma ah garaawul quoi tey togguma reer parce que dama sonn nañ leen di fondé nga ni garaawul mais nga waaj fekk benn waaye bu futteeku jaaxaan sa kaw la ñu koy fajal ci kii ma nga ni lii la la mu ne kii moom aye kan moo koy jéggale fii ci ñun nekk loxoom ah kenn yëkkatiwut de Euh, lu tax parce que daf la bokkaale kenn parce que daf la dendale kenn tey yaakaar naa loolu kuñ ko defaa boo yoroon pistolet ñu def ci douze coups douze coups yëpp ngay génnandoo benn yoon à la fois wala boo moytul di nga rey waa ji rey ndaw si parce que la parce que daf la dendale parce que daf la bokkaale loolu yow munoo koo baale léegi nag yow nga bëgg yàlla baal la oo loo tax bokkaale bon inna allaha yàlla laa yaxfiru du jéggal an yushraka bihi ñu dendale ko ñu bokkaale ko ak dara wala ak kenn daal leen du ma ko baale laaj nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ayu zanbin azam qaala an tajcalu lillahi niddan wa huwa xalaq yonente bi ban bàkkaar moo gën a rëy mu ne nga utal yàlla dend te xam nga ne yàlla la bind nga dendale ko ak kenn yàlla wax na ci suratu baqara fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bu leen utal yàlla ay dend te yéen xam ngeen ne yàlla amul dend yàlla ne wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha leneen lu dul bokkaale mun naa kaa baale ba mu des bokkaale ibnu abbas euh, ibnu kasir bi muy firi aaya bi nee na laa yaxfiru li abdin laqiyahu wa huwa mushrik yàlla du baal jaam bu dajeeg yàlla fekk yaa ngi ko bokkaale yàlla du la baal bokkaale sax mooy bàkkaar boo xam ne ku ko deewaale yàlla du la baal da ngay dugg safara direct yàlla buggul bokkaale te bokkaale tey ñu néew ci ñun ñoo ci mucc ñu ëpp ci ñun bu ñu xëyee ci bokkaale la ñuy xëy bu ñuy tëdd ci bokkaale la tëdd te am na mbir yu ñuy def dañuy defe ne du bokkaale fekk bokkaale la am na mbir yu ñuy wax ñu defe du bokkaale bokkaale la am na mbir yu ñuy def ñu defa ne du bokkaale fekk bokkaale la loolu moo tax liñ doon wax sànq mooy nit dafa war a am xam-xam di ràññee lan a yàlla moom ak lan la jaam moom li yàlla moom nga koy jox li jaam yi moom nga leen koy jox mais boo xamul dangay ngay rek ngay fekk lu yàlla moom nga jox ko nit nga fekk lu nit moom nga jox ko yàlla nga fekk yenn saa yi lu garab moom garab garab xam ngeen garab nga jox ko yàlla nga fekk lu yàlla moom nga jox ko garab parce que nekk ni ñiy sangu ci ay tuur ci ay xërëm di sangu ci ay garab di toog ci gën ah, di rey xar di ko jubalal sow di takk ay lam yu ñuul di tuur ndox seen buntu kër yi bu ñu li góor gi doon wax keroog bu ñu bu ñu arawee bu ñu fonde mbaa cere dañ ciy sànni benn këriñ gu ñuul ci digg bi yooyu yëpp lan la yëpp bokkaale la baaxul jullit du bokkaale yooyu yëpp jullit daf ko war mais soo ko xamul noo koy moytandiku ngay tukki di bind benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent ñu ne bul bindu fukkeel ba nga dem ba ñëwaat ngay tukki di nuyoo loxo càmmoñ ah ñu ne boo ñëwaatee nga doog a joxe yooyu lan la lu tax nit ñi di ko def yëpp bokkaale la bokkaale bokk yi ñaareelu aaye qaala alxalil alayhi salaam wajnubni wa bani an nabudu al asnaam an nabuda al asnaama yow yàlla maa ngi lay ñaan man ibrahim nga soril nga moytandiku loo ma man ak sama njaboot nga moytandoo ñu xërëm yi ibrahima alayhi salaam moom yemul ci ñaan de yamul ci ñaan yàlla yal na ko yàlla soril xërëm yi déedéet bal dafa jël sémmiñam dugg fi ñuy jaamoo xërëm yi nan la leen def leen a tojoti pour lan moo tax ñun dañuy toog di ñaan rek yal nañ yàlla musal ci xërëm yal nañ yàlla musal ci bokkaale mais duñu ko fi jëlee moo tax ay nit ñëw di ko def soo bëggee xërëm jóge fi ginnaaw ñaan yàlla da ngay def ses bi da nga ko di ñaan ñaan xam ne yow xërëm ngaa ngi nii sawe soo toppul xërëm bi tey sa doom topp ko suba wala say njaboot wala say mbokk wala say dëkkandoo wala wala wala wala mu ne ijaal nii ijaal nii wa bayni wa bani fi janibin an ibadati al yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma def man mii ak samay doom ci wàll wala ñu sori xërëm yi loolu mooy tafsiru aaya ij'alni wa bani fi janibin min ibadati al asnam yow yàlla yàlla ma dimbali man ibrahim maag sama njaboot ba duñ jege xërëm ñu nekk ci weneen wàll xërëm yi nekk ci weneen wàll asanam kullu ma kaana manxuudan ala sakli suura xërëm mooy lépp lu ñu yàq wala ñu dessiné ko mu mën a taxaw am jëmm loolu xërëm xërëm mooy lépp loo fas ci sa xol bi daf lay indil njëriñ wala mu lay dàqal loolu xërëm tey ci ñun laa gis benn waaye bu tàkk weñ bu ñuul soo ko nee weñ gi nu mu jëriñ il wax la dara wala gis benn waaye takk wala fii wala fii wala mu takk ko ci oto bi mu ci buntu kër gi soo ñëwoon ba nga ne ko asalaamaaleykum nga ne ko lii nga takk pour lan la lu lay wax non may musal may indi lu loolu mooy musalaate wala yàlla la yàlla loolu mënul musalaate misaal laa lay jox nga gis benn waaye bu takk buntu këram béjjén wala ci baaru oto bi mu takk ci béjjén soo ko ne lii nag lii daf may musal lii daf may aar diw moo ma jox benn sëriñ moom ma ko jox béjjén bi fan la jóge kuy doon ci xar ci kuy kuy ma anamu rey nañ ko ana yàpp bi ana yax ya seeñu nañ ko ana der ba ñu ngi koy jullee léegi nga di béjjén boobu yow mën na la musal te béjjén bi musalul fi mu nekkoon déggu leen ma de déggu leen ma de béjjén bi fan la nekkoon est-ce que musal na xar mi ci reen bi musal na xar mi ci lakk musal na xar mi ci lekk musal na xar mi ci seeñu ba pare yow nga takk béjjén bi <laughs> ku ko ma laal da ngay ku ma laal dee béjjén te xar ma nga takkoon béjjén bi dee na dafa dof la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ci joxe misaal ay junni junni junni misaal xool ki xëy sa xëy si suba di xëpp ndax bunt këram ndox fi nekk nii boo boo jéggee tali bi rek tali bi boo ko jéggee ñaata kër nga fay gis seen borom dëkkul lan moo leen fa génne ah ndox ndox ndox ndox mun naa musal nit est-ce que ndox kon mun am na jàmm na ci la la ko yàlla labal ndox kon ki xëy di sotti ndox ah te ay dëkkandoom yu mu gis fii ci Jahran ay téeméeri téeméeri téeméeri kër ñoo xam ne ndeysaan ndox moo leen xañ jàmm yow nga xëy di ñaan di defa ndox ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bokkaale ab julit daf ko war sori daf ko wara a daw ndax mooy bakkaar bi gën a rëy ci kaw suuf bu nit di def te yàlla du ko baal ixwaan yi bu ñëwee ci élément leçon bi mooy anasiru dars tomb bu njëkk mooy ashirk azamu zunub bokkaale moo gën a rëy ci bàkkaar yi ashirk azamu zulmin wa abqahu alqabaih bokkaale moo gën a rëy ci bàkkaar yi moo gën a bon ci ñaaw yëpp moo tax tribunal bi gën a rëy diggante yàlla ak jaam yi ëllëg yàlla di samp tribunal bi lan moo koy waral bokkaale yàlla ëllëg day yóbbu day yóbbu day taxawloo jaam ñi ci kanamam ñu leen di atte tribunal tribunal bi lan la axluqu wa yubadu gayri wa ashkuru wa yuskaru siwaaya man yàlla ma bind ñu bàyyi ma man yàlla jaamu keneen man yàlla ma wërsëgale ñu bàyyi ma di sant keneen walla tey ak a niiw ci réew bi ku ne damay sant yàlla man léeg-léeg ma dégg rajo ñu ne dañuy sant mais du nekk yàlla mukk musuma dégg ci rajo ku organiser sant ñu ne loo koy dee mu ne damay sant yàlla musuma ko dégg ma juddoo ak léegi yàggul nag ndax yéen mus ngeen koo dégg su leen koo dégg sant yàlla yàlla moo wër sëgale bind ñu jaamu keneen yàlla wër sëgal la ole nga sant yàlla nga sant keneen ñu sant yàlla te xam nga ne ki ngay sant wallahi lii nga am dara la ci def dara la indiwul dara la ci def yàlla moo la wërsëgal nga lekk lekk bi yàlla la ko wërsëgal ni nga ko amee yàlla moo la ko wërsëgal bi nga ko lekkee mu dugg sa biir rees yàlla la te xoolal yàlla bi mu la ko joxee pare nga lekk ba pare bañ ko sant mënoon na ko yëngal nga am problème eh, yàlla da lay bàyyi noonu rek ba nga dee rek mu dugal la safara parce que da ngaa bokkaale te bu bokkaale yàlla du ko baal wa huwa zambu lazi laa yaxfiruhu llah bokkaale mooy bàkkaar bi yàlla dul baalaat innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizzalimina yàlla ne ne li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna araam na yow doo dugg aljanna jamais wax naa leen ko léegi-léegi ku demoon léegi teg benn Ablaye Ndiaye sa kaw lal fekk bi ngay ñëw yaa ngi indaale douze coups xaw ma ndaw si de mais waa moom doo ko baal boo moytul douze douze bal yëpp nga ko koy tiire tër tër tër tër ba mu jeex te benn bi rek doyoon na xam na mais soo nga tiire douze yëpp parce que lim def lim la def doog ko musa baal parce que sa soxna moo la waxuma ak yàlla nag allahu akbar moo tax alquran yàlla wax ñu ci benn aaya nee na ëllëg li gën a merloo yàlla muy bokkaale ba yàlla di song doomu aadama ñu mel ne dañ koy téye mu naan zarni wa man xalaqtu wahida wa jaaltu lahu مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع zarni bàyyi ma bàyyi ma yow muhammad rek muhammad bàyyi ma rek zarni wa man xalaqtu wahida ak waa joo xam ne man maa wéet bind ko bi ma koy bind kenn fekkewul ñun ñu toog fi ci jàkka ji bi ñu yàlla di bind kan moo ko fekkee ku ci jàpp ku ci jàpp bi yàlla dañu bind kan moo ci jàpp bi yàlla di yattu bopp bi di di di nopp yi di bënn bët yi ak bakkan yi di xotti gémmiñ di saxal bëñ di placer làmmiñ kan mooy ñëw naan yàlla xaaral ma jàppal la fii côté bi noo tollewul maitréel fii jàppal ne kan moo ñëwoon di dimbali yàlla kan dafa amoon kenn ku nekkoon ci biir di dimbali yàlla kenn dimbaliwul yàlla da yàlla mu ne bàyyi ma rek ak waa ji xam ne man maa wéetoon bind ko wa man xalaqtu wahida yoo ko bindee ba pare mu nekk lumbu deret ma def ko nit wàcce ko ci kaw suuf ma may ko wa jaaltu lahu maalan ma may ko alal ma may ko ay doom ginnaaw ba moo ko mayee soxna ma may koy doom waa jooju tey dem di ngand ngandul ba bañ ma fàtte ma man yàlla fi ma jaaroon ak moom fàtte na woon moom mani yu la woon ndox la woon te ndox moo doy waar la woon waaw ndox mu doy waar mu salte ku mu takk sa yaram boo xëyee suba lii doy rek mooy nga sangu ku mu takk sa yére lii doy rek mooy nga fóot ko ndox moomu ne yàlla nee na laa leen bindee ngeen ñëw kaw suuf fàtte la ma leen binde mais man yàlla mi leen bindoon ngeen fàtte ma ba li ma leen tere woon ngeen dugg ci li ma bokkaale yàlla nee na man yàlla duma bale bokkaale inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha man yàlla duma baal kenn bokkaale ñaareelu tomb mbokk yi mooy aqsaamu sirki lan mooy xaaju bokkaale sirk saa yoo ko mooy bokkaale lan mooy ay xaajam as sirkul akbar ak asirkul asgar dafa bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw ñaari benn baaxu ci mais dafa am bu bon mooy bokkaale bu mag bokkaale bu mag mooy lan wa huwa taswiyatu gayrullahi billahi mooy nga tollale yàlla ak kudul yàlla nga tollale le comme li comme li ñuy def tey Sénégal jël mbindeef waxuma la sax bindeef muy dund mais mu dee muy tollal ak yàlla mën na nekk garab mën na nekk nit nga koy tollale ak yàlla borom asamaan ak suuf léeg nga dégg nit wax wax yoo xam ne wallahi juróom-ñaari asamaan yi ñu ngi ñu ngi baajaw di yëngatu ndax waa ji li mu wax ni mu grave bokkaale dafa rëy moo tax yàlla ne du ma ko baale mooy nga tollale yàlla ak kudul yàlla tabaraka wa taala fii ma huwa min xasaisillah ci loo xam ne yàlla rek moo ko moom yàlla kese moo ko moom nga ni diw moo diw mu def loolu yàlla mooy wërsëgalaate yàlla mooy dundale yàlla mooy rey yàlla mooy dekkil yooyu yëpp nga jël ko jox ko mbindeef xoolal tey da gis rajo yi rajo yi nga gis benn waaye bu buy def annonce benn sëriñ day faj ajo ko am problème ñëwal mu dindil la ku bëgg a tukki mu yóbbu la nga tukki ku bëgg mu yokk sa wërsëg day guddal fan lu ne ngay dégg waa ji day dem ba nga xam ne waa ji daanaka yàlla la ndax lépp la mën loolu yàlla rek moo ko mën lépp yàlla rek moo ko mën lépp kenn moo mën lépp muy yàlla keneen jeex na te li gën a garaaw mooy keneen xoola waa ji jóge Mali ñëw fii ne day maye wërsëg bu mënoon maye wërsëg du toog Mali ut may boppam wërsëg waa jóge Côte d'Ivoire ñëw fii ne damay maye wërsëg <laughs> kooku wërsëg lay ut si Sénégal ki jóge Guinée ñëw fii ne damay maye wërsëg kooku Guinée eh, wërsëg lay ut si fii su amoon mënoon may wërsëg du ñëw fii di la fayeeku naan la ba ma joxee sàngam ma defal la sàngam nit ñi duñu ñu xalaat dangay gis benn waay boo xamante ne li mu yor lakk jeexalu ko ñu wax ko rek mu tiit daw ba ci àll bi fi gën a sori ci àll bi foo xam ne amul sax courant amul gaz amul dara kam fay fekk ci der lay fanaan der ñëw naan waa ji man ah, ma tiit ndax nangam ak nangam waa naan ko xëy eh, dinaa ko réglé mu bàyyi fa ay koppoor yu dem ana yàlla ana yàlla jullit bu tiitee ci yàlla lay làqatu su amee aajo ci yàlla lay dem su feebaree ci yàlla la lépp yàlla rek moo ko mën keneen mënut yàlla lépp yàlla rek la ki nga yaakaar bi ngay judd fekk ko boo deewee sax du ko yëg dañ koy téléphoné na ko diw dee na mu tiit loolu kañ la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xanaa moom daf feebaroon ñu ne daf feebaroon feebar bu gàtt wala feebaru sax de ne xaar leen ma ñëw <laughs> bu ñëwee lu mu ciy def yéen ñi ngeen dégg ci yéen ñu dee seen kilifa téléphoné ne maa ngi ñëw bi mu ñëwee def da ko yëkkati da ko yëkkati mu jox mu ne ko doxal ba kenn laal la pourtant bu xale doon xeex ak ko ëpp doole ñu téléphoné papaam papaam ne xaar leen ma ñëw bu ñëwee kan la ñu ne kii mu aalu waaye bu dee ñu téléphoné bu ñëw day ñëw ne rek def ñu tëddi dara lañ ko wala waaw bu koy jëlee sax moom danaan daan yàlla innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kaana yashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma in kaana musinan fasidu allahu akbar allahumma in kaana musinan fasidu fi ihsani wa in kaana musian fatajawaz an day allahuma in kaana muhsinan ñi kenn ñemewul dee nga naan yàlla kii da doon def lu baax xool da ngay accuser waa ji doon tane boo ko doon gis muy fanaan ci jàkk ko da doon def lu baax allahuma in kaana in xarfu la ab sar bu fekkee da doon def lu baax bu fekkee da doon ah ba sidu fii saani dool bu dee criminel la woon nag jéggal ko te ñun ñi foog ñu ñëw jullee ko rek pour jox la ko laa taftin naa baax da huude bul ñu kereel ginnaawam de nag ñu baal daan ne bismillah jël leen ñu yóbbu ko gis nga yi nañ xam yàlla yàlla du moroom yàlla moroom te réew mi dara taxul mu egsi yàlla place jël ko teg su baax la yonent bi amul a baax bi am na fu mu waree kenn du ko yéegal ba yéegal ko ci yàlla gis nga jibril guddi yi muy ànd ak yonent bi ñuy dem ci yàlla jibril dafa dem ba jaag daana yonente bi man fii laa mën a yem nag moom dumaa dem wa minna illa lahu maqaamun maalum ku mu mën a doon ci ñun yi dafa am fu mu yem yoon bi ne ko ha mu ne waaw man fii laa yem man dumaa dem jibril xam na fu mu yem waxuma laa rek nit Sénégal nga gis ñu jël mbóot di ko jeey ba mbóot bi am ay ruudi daw baax lu mu baax baax foofu la yem terminé mbokk yi bokkaale bu mag mooy ñu yemale yàlla tollale ko ak lu dul yàlla jox ko ay melokaan wala ay jëf yoo xam ne yàlla dong dong moo ko moom lu mel ni ñaan yàlla lañ koy def rendi yàlla lañ koy def di rendi jër dara di ko rendi yàlla rek moo ko moom li tax tey tabaski jot nga ñeme jënd xar rendi lu tax yàlla moo la ko sant da nga am gan rendi yàlla moo la ko sant da nga am doom rendi yàlla la ko sant bis boo feebaroon ñu ne la rendil boo rendee def sa dem safara boo deewee boo amoon kër nga toxu tabax kër gi ba pare nga dem jël xar teg ko ci digg kër gi rendi booy dee dem safara ndax kër gi nga rendi rendi loo yàlla da dégg loolu te loolu dafa am Sénégal balaa kenn ci ñun toxu kër dinaan xaaral ma tuur ci kër gi dren maanaam mooy ma dàq jinne yi fa nekk bu fekkee am na fa bu tuural leen deret ndax ñu bàyyi sama njaboot loolu musiba la bokkaale weesumul lool wala nit feebar ñu ne foog ñu reyal ko nag wu ñuul ko wala xar bu ko wala benn benn melo loolu ñaata yoon ngeen koy dégg ku dugg ci yooyu ba dee boo dajeeg yàlla dinga nga sa ñaari loxo récc loo doon def ci kaw si yàlla du ko baale mbokk mbokk yi ñaareel bi mooy bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw asirkul asgar wa huwa ma warada fi lkitaabi wa sunna annahu shirkun mooy li rot ci téere yàlla bi ak sunna yonent ne moom bokkaale la eggul walam yasil ila haddi shirkil akbar eggul ci bokkaale bu mag waaye jege na ko comme lan comme waat ci ku yàlla bokkaale la ak wax ne bu neexee yàlla ak diw loolu ñaata lañ koy wax fii ñaar yi ma wax rek naa ci yëpp waat ku dul yàlla Sénégal ci la dund te fi mu nekk nii soo ko doon wax ba mu leeri nit ñi di ko dégg nga gis ku génn daal ne waaye kay dañuy sóob maa ne diw waaw lépp li ba ba nga dee booy dee di dugg jahannama sa bopp rek ngay lor bu la waa ji indi saabu ak bu saabu bi gën a xeeñ ci saabu yi sarbet bi gën a set tegal la brosse tegal la lépp tegal la ndox mu tàng tegal la sens ne la sangul nga dem kuuroo huile koo ko def koo def sa bopp ngay wax ne tuuroo nga génn dafa kenn ay nag danañ laaye biir xeet wi ndax jàng responsabilité la ku xam lii waxoo ko nit ñi boo dee yàlla lay lakk foog ñu wax ko nit kon ñi leen di wax ñi wax ak yéen di leen fàttali dangeen ngeen xam ne dañ leen a bëgg dong dong dong dong dong fi mu nekk ni tey bu benn milliardaire duggoon ci jàkka ji def ay enveloppe di joxe kenn ci ñun du génn jàkka ji lu dul ñëw ne ko <laughs> salaamaaleykum man de amagu wala wala leen wala ah waaw léegi ñu ñëw di di la wax loo xam ne moo gën milliard mooy loo xam ne day tax dugg safara doo ko doo ko jël du mu jëfe ji te boo ko jëlee nga dem ba ci ginnaaw jàkk ji nga gas ba mu ko ko ba nga dee boo dee rek tàbbi safara te ba dugg safara di nga xam defoo koon kenn wakkaale baaxul mbokk yi waat ci kudul yàlla yonent bi nee na man xalafa bi xayrillahi faqad ashraka ku waat ci kudul yàlla bokkaale xam nga lu tax waat ci jaamu yàlla yi la bokk mooy da waat ne da wax ne lii moo ko waxee rek dama koy def yàlla rek moom moom loolu waat yàlla moo ko moom gis nga fi mu nekk nii ku waat li nga waat defoo pour yàlla baal la xam ngeen xam ngeen looy def hmm? ngay war ñetti fan mbaa nga jox fukki miskin ñu lekk mbaa nga goreel jàmm gis na pour yàlla baal la wane na waat jàmm yàlla yàlla moo ko moom nit moomu ko nit amul droit waat ci kudul yàlla nit yàlla moom lu ko neex mu waat ndax moom moom jaam yi moo tax ngeen dégg mu daan wa shamsi wa duhaaha wal qamari iza talaaha wan nahaari iza yàlla di waat ci yooyu yooyu ngeen dégg yàlla ciy waat wa tiini wa zaytuun yooyu ngeen dégg yàlla di waat di waat ci mbindeef yi parce que moom moo leen moom amma mbindeef amul droit waat ci ku dul yàlla est-ce que mës ngeen xam ngeen Aboubacar Saddiq xam ngeen Seydina Aboubacar est-ce ngeen dégg fu mu waat ci yonent bi waat doon dëgg ñu mën a waat ci nit kon saxaaba yi waat ci yonent bi ndax bëggoon nañ ko bëgg goo xam ne amul ci kaw suuf ku gën a bëgg saxaaba yi yonent yàlla Muhammad mais kenn musul dégg benn saxaaba keroog ba saxaaba bi ñëwee ne ko yow yonent bu neexee yàlla ak yow yonent bi dafa dig jóg taxaw ne ko ajaaltani lillahi niddan dag may booleeg yàlla man ngay teg ci wetu yàlla waxal yàlla rek gis ci saasa la ko yonent bi effacé mais ñun tey waxuma la waat ci yonent waaye ay géeñook baay sax da ngay def ku ne sama géeñook baay géeñook géeñook baay nga dégg ne sama bakkanu doom sama bakkanu doom sama doom ji di giñ ci sa bakkanu doom sa bakkanu doom da nga moom ba ci waat bakkanu sa bakkanu doom yàlla moo ko moom amoo droit waati xam ngeen géeñoo xam ngeen luy géeñoo géeñoo mooy boo amee mbasin yóbbu ko ci téer mu ñawal la ko buum gi muy takkee tubéy bi xoolal loolu loolu lu ciy waat sa sa tubéy yu bàyyi buum gi nga ciy waat buum gi di takk sa tubéy yu bàyyi nga sama buum googu di takk sama tubéy yu bàyyi waat naa ci ak sama geñoog bàyyi loolu du waat xam nga de loolu caaxaan la kon mbokk yi nan moytandiku bokkaale nanu moytandiku lépp loo xam ne day tax yàlla dinu mere bu dee dem safara nañ ko mooy dindi ko bokkaale bu ndaw ak bu mag bi ci la bokk mooy sirkul akbar ak sirkul asgar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na bokk na ci bokkaale bu ndaw mooy ngistal iyaakum wa sirkul asgar qaalu ya rasulallah wa ma sirkul asgar qaala riya maa ngi leen di mooy tandikuloo bokkaale bu ndaw sahaaba yi ne lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne mooy ngistal di def dara pour ñu gis la man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salih wala yushrik bi ibadati rabbi ahad ku mu wóor ne ay bëccëg a ngi ñëw wala ay guddee ngi ñëw di dee dajeeg yàlla bul bokkaale bokkaale yi bokk na ci bokkaale ba tey mooy wax ne bu neexee yàlla ak diw bu neexee yàlla ak diw benn misaal laa leen di jox sa jabar bu ñëwoon ba ci yow daane bu la neexee yow ak Moodu rek dinaa toog ngaañ bu la neexee yaa ak Moodu nga ne ko kuy kooku mu ne ah kooku ci la bokk nooy def kan moo nangu loolu bi nga jël yàlla di ko dend ak kenn naan bu neexee yàlla ak diw maa day neex yàlla neex diw ba pare mbir mi nga may seesi ginnaaw suba ah waxal bu neexee yàlla ak diw dinaa ñëw wala yàlla neex diw pour nga kër ci seet pour ko waaye loolu du dëgg waay yàlla rek lay neex waay kooku tus la ci mënul ana kooku sax kooku mu ngi am ay problème ay doom dee nañ jabaram dee na ay mbokkam genn wàll yëpp dee nañ mënuñ ci tus guddee ngi am bëccëg di am gaz baa ngi ni manqué kooku mënuñ ci dara courant baa ngi ni coupé mi ngi nii kooku mënuñ ci dara kanaan bu neexee yàlla ak diw man leen yeewu ma ni baa ngi nii nañ ko indi yàlla rek yàlla rek lay neex dara ne bëccëg bu ñëwee nañ neex na kenn dem wóolu kenn ne ko indil guddi gi buy taw na neex kenn mu téye taw bi mani kenn warul wax bu neexee yàlla ak di ci teg keneen yàlla rek qul ma sha allah waxda yàlla rek keneen bokk loolu na leer sunu bopp ñetteel ci anasiru dars mooy mal farq bayna shirkul asgar wa shirkul lan mooy séparé diggante bokkaale bu ndaw ak bokkaale bu mag lan moo koy séparé lan mooy séparé diggante bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw a shirkul asirkul akbar muy bokkaale bu mag yuxriju min al islaami min millati l islaami daf lay génn ci yoonu lislaam boo bokkaale bokkaale bu mag daf lay génne ci lislaam tamaaman ku bokkaale rek génn nga ci lislaam nekkatoo julit war a bokkaale dangereux mbokk yi ñaareel bi mooy asirku yujibul xuludu fi naar day tax nga sax ci safara dootoo génn ci ñetteel mooy ashirk yuxbitu jamiil amal day yàq sa mbooleem jikko bokkaale day yàq sa mbooleem jëf mbooleem jëf yi nga jëfoon bokkaale daf koy yàq ñeenteel mooy yabihu nafs ashirk wal maal maa lam yakun zamiyan aw muahadan aw mustaminan bokkaale bu mag day tax ñu tuur sa deret ñu ñu nangu sa alal kenn dong mooy bokkaale ci dëkku lislaam ñu bàyyi mooy étranger ku fa dëkkul ñoo ci dëkk bi bokkaale wala muy ku ñu signal benn contrat benn pacte wala muy koo xam ne dafa ragal fa mu nekk mu ñëw ci dëkk jullit ñi ñett ñi dong ñooy bokkaale ci lislaam ñu bàyyi leen mais keneen ku dul loolu jullit bu bokkaale leen ko war a rey day tax ñu tuur sa deret gis ngeen bokkaale bu mag ñeent lay waral ci nit bu njëkk bi mooy da génn ci lislaam bokkaale génn nga ci lislaam ñaareel day tax sa jëf yépp yàqu ñetteel da ngay sax ci safara ñeenteel day tax ñu tuur sa deret boobu mooy bokkaale bu mag bokkaale bu ndaw laa yuxriju min millatil islam du la génne ci yoonu lislaam du la ci génne di nga nekk julit mais di am bàkkaar lu tax nga sax safara mais di nga fa jaar fa jaar de hmm. <laughs> loolu saa yi nga dégg ko de ah man kay wax dëgg yàlla man bu bu safara bu ma nekkee ci suuf sax baax na bu ma nekk ci digg bi rek loolu yëpp dof la kan ci ñun bi mooy dem léegi fekk soxnaam di taal reer mu ne ko teggil gaz bi daal ci toog kan kenn du ko def safara te xoolal foofu boo ci toogee sa suuf gi rek mooy lakk bopp bi lakkagut mais ñàkk xam safara moo tax nit ñi di wax yenn saa nga dégg benn bandi saay-saay bi nag safara moo gën a xumboo ah. parce que ay Michael Jackson ay maar la fa la ñuy nekk day am ay soirée mooy gën a xumbo àjjana <laughs> la hawla wala quwwata illa billah ñetteel mooy yuxbitul amal alladi qaaranahu bokkaale bu ndaw day yàq jëf ju mu dendal kaman yaqra alquran riyaan mu ngi mel ne kuy jàng alquran di ngistal li muy jàng amu benn xam ne day jàng alquran di ngistal laa ajra kenn du ko fay du am benn tiyaaba bal alayhi ismun waaye day am bakkaar ndax day ngistal te pour pourtant li muy def lu baax la lu muy def day jàng alxuraan mais lu tax amul tiyaabo parce que day ngistal mu ngi mel ne ku julli war na am tiyaabo wala waroon tiyaabo mais amul tiyaabo parce que bu nga ñëw doon xaaral ma ñëw woon ngaa yi ci tey rek ma gratte ma gaañ leen daa mun tey ma maa leen dàq julli xaar moo leen tey maa leen dàq joxe xaar moo leen tey maa leen dàq loolu musiba la defal ngir yàlla ñeenteel bi mooy laa yubihu nafs wal maal ku bokkaale bokkaale bu ndaw kenn du ko rey kenn du nangu alalam loolu moo doon ñetteel ci anasiru dars ñeenteel ma duna sirk min azunub azunub allati duna sirk daaxilatun taxta machiatillah bàkkaar yi nga xam ne du bokkaale dafa dugg ci coobare yàlla in shaa gafara allahu lil muznibi bi fadlihi su neexee yàlla mu baal waa ji ci ngëneelam daa njaaloo su neexee yàlla mu baal yàlla la ne lay dafa sàcc su neexee yàlla mu baal dafa rey nit yàlla mu baal wala rey nit li muy garaaw garaaw bu neexee yàlla mu baal mais bokkaale yàlla du ko baale yeneen bàkkaar yu dul bokkaale su neexee yàlla ci coobareem mu baal la ko parce que moom nga ko tooñ bu ko neexee mu baal la mais boo bokkaale yàlla du la baal kon ñun war nañu xam luy bokkaale pour ñu moytandiku hmm. Hmm. wa huwa allazi ja'alahu llahu ummatun wahid waaw ah. hmm. moom bokkaale boobu su neexee yàlla mu baal na bu neexee yàlla du la baal bu ko neexee mu baal la mu dugal la aljanna wa adxulahul janna wa insha azabahu bi adlihi bu ko neexee yàlla mu buggal ko ci maandu teem dafa tooñ dafa rey nit dafa sàcc dafa fen dafa ko neexee mu baal ko ko neexee mu buggal ci maandoom après mu dugal ko aljanna comme ni mu ko waxee moom yàlla wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha su ma neexee ma baal waa ji bàkkaar bu ma neex bu dul bokkaale juróomeel mooy xawful ambiya min ashirk mooy ragal gi yonent yi ragal bokkaale xaafa ibrahima alayhi salaam ala nafsihi wa ala banihi min ashirk ibrahima ragal na ci boppam bokkaale waaye mu ragal ci njabootam bokkaale wa huwa allazi jaalahu llahu ummatun wahdahu moom ibrahima dong moom la yàlla def nation inna ibrahima kaana umma lu tax ndax tawhid bi mu am kennal gi mu kennal yàlla moo tax yàlla def ko benn nation ba pare mu ragal bokkaale ci boppam ragal bokkaale ci njabootam yemu ci waaye wa kassaral asnaama mu jaral ko dugg ci jaamukaay yàlla bi jël sémmiñam goppam tasaari xërëm yépp mu toj leen fi yadihi ak loxoom daf toje xërëm yi fa daa rabbahu subhanahu wa taala mu ñaan boroomam tabaraka wa taala ci boppam li nafsihi wa banihi an yujannibahum ibadat al asnaami mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga soril ma man ak samay njaboot nga soril ñu xërëm yi wajnub nii wa baniya an nabudal asnaam an nabudal asnaama yàlla maa ngi lay ñaan man ak sama njaboot nga soril ñu xërëm yi te Ibrahima tës na xërëm yi pour pour moytandikuloo boppam waaye pour kuloo njabootam ñun nag ñun waxuma toj xërëm waaye dañuy tabax ay xërëm wala ñuy yett ay xërëm di ko indi suñu biir kër yi wala ñu koy takk wala ñu koy jaay wala ñu koy jënd di ko indi di ko def suñu biir néeg wala di ko takkal suñuy doom léeg-léeg nga dafa jaag rek gis xale bu ñu takkal sagar bu xonk ñu ne jinne dafa réer nga gis ñëpp takk sagar yi xonk loolu pour la la loolu xërëm di dox ba ci yàgg mu nekk ci ci mu for këriñ nga far lan lay jëriñ këriñ googu xanaa xamoo lan la woon lan la woon këriñ bi lan la woon garab yi ñëw gor ko mu daanu ñu lakk ko ba mu ñuul kuku kuku kuku ñu indi ko fii ñu koy toggee ceeb ak di ko ataaya yow nga jël ku ne dina ma musal bu doon doon musal kay garab gi mu jóge daanaka amul këriñ garab la woon buy dund. moo leen buñ fii jël naan daf ñuy musal wala nen nen nen nga gis ku jël nen ñeenti nen dem ba ci digg mbedd daal teg ñeenti nen yi ndeysaan teg dem yoonam jël guro gi teg ci nen nen nga xam ne boo ko jamee sa wee boo amee doole boo ko jamee ci sa wee nu muy def day bënn day dugg nen boo ko sànni ma ci kaw bàyyi ko bu nu muy def ah day tas explosé dootoo fekk dara aar boppam yow mu lay aar mboolem bi ñuy jël naan def ñuy aar munul aar boppam léegi koy war naa xam ne yow lii mun laa aar mun laa musal lu munul aar boppam dëgg-dëgg bu la dàqee sax ngay làqatu ci kan nga war a làqatu ponkal wala am yembar ci kan ci bokkal mais buñ la daxee nga ñëw fekk benn yambar bu mel ne yow nga nëbbatu ci moom waa bu ñëwee yéen ñaar ñëpp lay pes mais boo laxatoo ci benn ponkal waa ji ne tëll seen ponkal bi day taxaw fale naan la fi yow naa la jàpp ba beneen yoon garaaw xam ne naa bu ñemee yegg si ndax am na ku gën a nekk yàlla ponkal ku fi ngand yàlla moo la gën a nekk ngand ngand yi ngeen amoon yëpp yàlla tëral na leen kon du ñu ay ngand dañ doon ngand ngand yaar rek mooy ngand bi mbokk yi dafa jot ñu xàmmee xam ne bokkaale amul njëriñ Ibrahima a ngi nii ragal bokkaale ñaan yàlla yal na ko yàlla soril xërëm yi mu jël jaaseem dugg ci daaneel ko fa daa rabbahu subhanahu li nafsi wa banihi an yujannibahu ibadat al asnaam lamma raa aksara annaasi qad uftituna biha ba mu gisee ne nit ñi genn wàll gi yëpp xërëm yi alak na leen dugg nañ ci xërëm yi mu ne rabbi innahunna adlalna min annaasi yàlla xërëm yi réeral nañ ñu bare bare bare wallahi ibrahima lii kañ la ko doon ñaan ban jamono la woon boobu lislaam sax ñëwagul boobu yonent yàlla Muhammad ñëwagul ibrahima naan yàlla xërëm yi réeral nañ ñu ci àddina bi ak ñoo mën a bokkaale boo duggee ci kër yi buntu kër yi saal nit ñi boo leen doon làmp yaa ko fii ci jàkka ji bu ñu doon palpe ndigg yi léegi nga taj ay ndombaak ay lamak ay taawak ay xaawak ay xarfafu ba yu ñu tàkk takk ba takk ay weewu ñay ay bëñu ñaay ak la xawla wala gaa yi bu ñu xëyee suba ndox yi ci bunt kër yi oto yi ah! inna lillahi wa inna ak ñoo mën a bokkaale loolu xërëm la même da gis xaar bu ñu koy rendi xaru tabas nga gis nit ñi ñëw langaam nga gis ñu rey ko bari gaa yi di capp ci deret yi di def seen jël sobe la deret sobe la yéen ñëpp jàng ngeen di xar bi sobe la ci rendi xar bi ba pare day jàppiwaat njàppoom toj la yow nga ñëw di capp salam béjjën la ngay gis koo takk lépp luñ jëlee ci lu dee loolu takk ah maa ngi nii di ñaan yàlla tabaraka wa taala pour lan na ko yàlla soril xërëm yi ndax xërëm yi dafa réeral doomu aadama yu bari bari bari bari bari lan la wax moom Ibrahima alayhi salaam rabbi innahunna adlalna kasiran min annaas yàlla xërëm yi dañoo réeral ñu bari moo tax moom Ibrahima mu daal di koy daaneel mbokk yi fa kasiru fa kasaratul xaalikiina li tax ñu ëpp ci nit ñi ñu alku fan lay dellu mooy dafa dellu ci bokkaale kon ragal bokkaale lu war la lu jar doomu aadama di ko moytandiku la lépp loo xam ne day tax doomu aadama am tawxiid doomu aadama loolu la war a def bu fekkee ibrahima a ngi ragal sirk fa ida kaana alxalil alayhi salaam xaafa shirk ala nafsihi wa banihi fa nahnu awla bilxawfi minhu ñun ñoo ci gën a yay Ibrahima bu dee dafa ragal bokkaale ak njabootam ñun ñoo gën a rey ci ragal Ibrahima ndax Ibrahima ab yonent la te mu ngi nii ragal bokkaale bay ñaan yàlla yemu ci mais mu def di ko daaneel kon ñun nag ñun ñoo ci gën a yay mbokk yi juróom-benneel mooy xatru sirk mooy danger bokkaale yajibu alxazaru min assirk mooy tandiku bokkaale dafa war kulli ji yëpp nag bokkaale yëpp bu ndaw ak bu mag mooy akbar ak asgar mooy te lu war la looloo tax lu ëpp ci ñuy askanoo lislaam wa zalika mimma waqaa fiihi baadu lmuntasibina ila alislam min alxuluwi fi alambiyai walsalihin tey da ngay gis li ëpp ci ñuy askanoo lislaam di wax man jullit laa di ëppal ci yonent dem yëkkati yenn yonent yi ba paaseel leen yàlla yëkkati yenn nit ñu baax ñi ba paaseel leen yàlla waaw saa nga dégg ñu ne Abdul Qadir Jaylaani dafa pesoon malakal mawti El Omar demoon na Badr Jibril dafay wàcc Sénégal di wax wax yoo xam ne kenn xamul nu dafa mos a ñëw Sénégal nu mu Jibril am suñ jot bañ koy dessiné ci ay photo ah ku toll ne malakal mawti yàlla dina ko liggéeyloo Abdou Qadir Jalaan di ko fes ba bët bi di tuur loolu xet nangu na ko yooyu ay wax la yoo xam ne jël nit ku baax di ko tagg di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu loolu musiba la da gis fii tey gars yi di jay nit di ko jay di ko jay bay jegeel ko yàlla loolu jullit du ko def mbokk yi bi su aali qadaay haajatim dem ci këram dem ci bàmmeel fekk ku dee nga naan ko man dama bëgg a tukki visa laa bëgg visa rek ah loolu musiba la ku dee kenn du ko ñaan ku dafa mën a maye ku bu doon maye jóg li jëm jëm ñibbi këram jabaram yaa ngi ne keneen càkk leen di fanaanoog ñoom tus la ci mënut jëkkëram a ngi ne keneen jël di fanaanoog moom sam moom ñun waa këram a ngi ne yenn saa yi duñu añ duñu reer du ndékki te mu ngi ni tëdd mënuñ ci dus kon ku dee du may ku dee du faj ajo yàlla mooy faj aajo yi ku amati aajo jublul yàlla dama nga julli ñaar raak nga daal di ñaan yàlla wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai iza daani ixwaani yàlla mooy faj ajo yi yàlla mooy dindi njàqare yi kuy nësër na nga nësëral yàlla kuy rendi na nga rendil yàlla ku feebar ñaanal yàlla mu faj la nga moytandiku bokkaale comme ni ko yenent bi dawee dawloo ko ay njabootam nga yëg ne bokkaale li la ciy dimbali mooy nga tuub balaa ngay dee ak moom nga sellal sa jëf nga jëf-jëf ji ngir yàlla rek wa illa faman maata fa innahu muxalladun fi nnaar deewaale bokkaale day dugg safara te dafay sax dootoo génn éternellement waa safara la yàlla di xool ñi doon bokkaale ne leen yéen xaalidina fiha sax leen bii safara dootu leen génnaat innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansar képp ku bokkaale yàlla tabaraka wa taala yàlla nee na yow araamal naa ci yow aljanna safara ngay sax éternellement mbokk yi ci yàlla lii moo doon dars tey bi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu musul ñu ci bokkaale ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla dundal ci lislaam rey ñu ci lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu